ñaane leen ñu yàgg ci kanamu njaboot gi banaal yi nga xam ne moom la seen waajur yi naal ñu man ko àggale te ñu ànd kook taalibe di leen ndokkeel bu baax a baax ci jataay yi nga xam ne ñi ngi koy def ngir waajale ko bis bu mag bii di màggalug Asrona Muharram di màggalug Cheikhul Khadim ñu gën koo xam ci màggalu Daaru Xuduus wala màggal gu njëkk wala màggal gu Serigne Cheikh loolu la muy tegtale rek mooy la Cheikh Khadim waxoon ni loo gis mu bari ay tur yuñ koy wooyee loole la muy tekki mooy dara jaam kon plateau bi bokk ci plateau yooyu ñuy def plateau bi nag incha allah ñu fas yéenee waxtaanee Cheikh Modou Moustapha ak liggéey liggéey nag bu ñu ko waxee xam ko ci jullit ñi waaye xam ko ci yoonu murit waaye ko wax Cheikh Modou Moustapha ne ak liggéey sam xel dana dem ci jumaay Touba waaye ko sam xel dem ci jumaa ji nag sam xel dana dana dem ci laata jumaa ji muy raay bi kon ñu jël Cheikh Modou Moustapha ak liggéey waaye jël ci exemple raay bii nga xam ni moom la tàllal muy lu am solo lool. boo ko defee nag incha jataay bi ñu seq ko suñ ñaari nattangoo ki nekk sama rajo di sëñ Bàcc Silla incha allah ki nga xam ne moo nekk sama càmmoñ di sëñ Ahmadou Ndiaye boo defee kon sëñ Ahmadou Ndiaye dana ñëw ñun ci Cheikh Ahmadou Moustapha ni mu nekkee exemple ci wàllu liggéey waaye nag mu jëluñ ci fànn ci raay bi boo ko defee incha allah sëñ Massamba it danañu ñëwal it Cheikh Ahmadou Mountakha moom it ni mu mel nii dafa wéyal dafa wéyal mbir mi. exemple bi ñu ci mën a joxe dëgg-dëgg ci liggéey mooy université bii bu mag bii nga xam ni taxawal na ko Cheikh Khadim fas ko yéene liggéeyal kon xam naa incha allah day jox rek sëñ Ahmadou mu nuyoo waaye nuyoo bi nag incha allah day ànd ak laaj bi kon Cheikh Cheikh suñ bëggoon a xam dayob raay bi ak raay bi ndal moo ko taxoon a jóg sëñ Ahmadou bisimilah. bokki jullit yi bokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara ñoo ngi leen di ñaanal yërmaande suñ boroom ak njëggalam di ci jiital nag ki fi toogal seexul xadim di cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ñaan suñ boroom li ko mag ñi bàyyee mu di ko sàmm yàlla bu ci dara suut yàlla na ko yóbbu fu gën a kawe fa mag ñi doon mébét di ñaanal itam jëwriñu cheikh Mouhamadul Moustapha di sëriñ Ahmadul Muxtaar ak mbooleem ahfaad cheikh Mouhamadul Moustapha yëpp yàlla na leen suñ boroom sàmm te may leen kàttan ba seen yéene ci ndono li ñu leen fi bàyyeel ñu yóbbu ko fu kawe seen yort ñuy nuy bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp bu nu seenee ci jataay yu mel nii ci waxtu wi xel dana laaj waaye bu boobaay tontu dana am mooy bisub Sëñ bu jub si di ashrina muharram di bisub ñaan di bisub fàttaliku bis yoo xamante ni buñ ci tollee fàttali ko taxawaay yi nga xamante ne ni mag ñi taxawoon nañ ko démb te mag ñoo ñi dañ leen a ameel bor ndax dañoo dëkke seenub gent di tedd ci seenub liggéey di dund ci seen wërsëg di sagoo seenub liggéey kon ameel nañ leen borub ñaan bu ñu wéetee am nañ borub di leen waxtaane suñu wettali ko bokk ci seen taxawaay yooyu nag jamono soxla ko lool rawatina génération bii di dund ci jamono yi di dund ñu eh, dégg ak gis ci tàyyeel gu ñu tàyyeel ci jaamu yàlla tàyyeel gu ñu tàyyeel ci liggéey ak rax goo xamante ne ni danañ ko rax ci sunuy liggéey ngir bëgg am koom te yooyu yëpp du yoo xamante ni ni dëppoowut ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi nu am nag ay référence yoo xamante ni sunu delloo ci ñoom duñu juum tey nu jël ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir jëkk gi mu jëkk a seexul Cheikhul Khadim kon moo xàll yoon wi nga xamante ne ni buñ ca tegee sunu tànk dana dëppoo ak ni sëriñ bi bëgg jël référence itam ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir mag gi mu mag ci njabootuk sëriñ bi nga xam ne diggante sëriñ bi la yaroo ak sëriñ Daam Abdourahman Lo ak suñ maam Thierno Birahim ak suñ Mor Diarra diggante boobu ab jaahil du fi yaroo kon mel na ni bu fekkee dañoo jël suñuy tànk mépp ko ci ay jéegoom dana dëppoo ak la suñ boroom doon wax ni wa anna haza sirati mustaqiman fattabiuhu dana dëppoo itam la suñ borom doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni in tutiuhu tahtadu ku ko roy da jub ku bëgg a mel ni suñ borom bëgg faw nga bàyyi ko xel bu baax a baax ndax melokaanam tey nag ñu jëloon temub liggéey ak jaamu yàlla ngir waxtaane ko ndax loolu mooy diine loolu itam mooy yoonu murit ñu jël ci référence de kii nga xamante ne ni moo jëkk a sëriñ bi sàmm ndono li ba ñeneen ñi ñëw gannaawam xam fu ñuy teg seen tànk ngir continuté mu am amul rupture mu bokk ci ay taxawaayam yooyu yoonu saxaar gi dañ ko caa jukki rek ngir bëgg gën a jege askan wi ñuy waxal gën a jege seenum xel bañ bën a gën a comprendre li ñuy wax muy yoon wi liggéey daf cee bokk mënu cee ñàkk sëñ Mor Mbay Cissé mu baax mi sax daf daan wax ni liggéey na la gënal sa bopp liggéey na la gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la sa sëriñ gënal la sa jabar gënal la say doom waaye bu koy leetal bu koy leeral day wax ni liggéey ni nga def sa bopp ba ku la gis bëgg la liggéey bee ko waral daal ni nga def sa bopp ba sëb sëriñ ku jóg mu ko jaaral ci diw sab taalibe liggéey bee ko waral ni say waajur fu toll di la gërëm a sant ndax sab taxawaay liggéey bee la ko may sa soxna si lay sagoo ak say doom ngir foo leen mën a féete foo leen féete ci ay taxawaay ak njariñ ne liggéey bee ko may moo la ko may kon liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla waaye luy tax liggéey doon jaamu yàlla mooy day doon liggéey boo xamante ne ni xaramut day liggéey boo xamante ne ni xaram tabbiwu ca day liggéey boo xamante ne ni defoo ko ci waxtu woo xamante ne ni suñ borom daf la caa soxla nga xam ni kon danga koo def ngir moyen walay jàppale ci ak jaamu yàlla Cheikh Mouhamadul Moustapha bi mu sumbee ab liggéey naal wii ci penc mi moo tax mu sumboon liggéey ba. waaw kon sëñ Amadou daa mel ni kon buñ déggee Cheikh Amadou ak liggéey. rawatina ñu jël exemple ci saxaar gi kon loolu day mel ni yoonu saxaar yi dañ ciy jàngate ni waxuñ sax ngir am solo gi mu am solo nga xam ne dafa mel ne raay ko maa jumaa jee ko taxoon a jóg waaye kon loolu bépp jullit rawatina am murit kon war na cee déggee ni liggéey mënta ñàkk ci ab jullit rawatina am murit li muy am am am importance donte kon loolu lu am solo la waaye xam naa damay ñëwaat ci tuuti incha allah waaye kon kon dañ ci déggee ni rek ni kon am murit saa bu gisee yoonu saxaar gi. la war njëkk jàngat mooy ndekkikat am yoon wi liggéey ci la bokk rawatina nag nga liggéey loxante xamante bi euh, dafa day ma ma ñu naan day matale maanaam naal bu bu fi sañu bu fi sañu bàyyi woon kon loolu day mel ni dañ ci am ñaari ndam liggéey nga ngir liggéey daa bokk ci yoon wi waaye nag ngat jaaree ko foo xam ne bii nag day ak jaamu yàlla kon yoonu saxaar gi des na ci may dégg lu mel noonu kon xam naa sëñ Bàcc yow it bi ba tey day ànd ak laaj bi. kon yaakaar na suñu déggee ni ko suñu suñu Ahmadou waxee ci raay bi day mel ni raay bi jamono bi mu tolloon ni ko Cheikh Moustapha doon taxawee ni mu amee njariñ dafa mel ni tey ku xool ki fi nekkal Cheikh Al Khadim di Cheikh Ahmadou Mountakha yàlla na fi yàgg ci wér moom it naal wu mag wii mu naal di ab université kon day mel ni mel na ni ñëw na ci jamonoom waaye mel na nag université ku ko waxee nag mel na ni bari na ay tur waaye ñu bëggoon xam ba xam ndax université bi ku ci doon joxe exemple ndax dafa mel ni université yi mu fekkoon. ndax ñoo tolloo ak ndax wala wala sax ndax ñoo lu leen tax a jóg ndax ñoo ko bokk. jërëjëf sëriñ Cheikh ci laaj bu am solo boobu ñi sant Serigne Ahmadou fi mu daaneele rek euh, waaw euh, dañu naan Serigne Mouhamadul Moustapha ak liggéey wax raay bi waaye université bi Serigne Mountakha biit euh, dafay mel ne naal yu mel noonu rek la taxawal ndax. yoonu murit al ibadatu wal xidma la jaamu yàlla ak liggéey université bi mu jàmmaa la complexe la e, làmboo na lépp daa ëpp université man bu may wax dama naan daa ëpp université ndax loo xam ne daa daare alquran la tàmbalee ba e, ba dugalaale majalis ci biir dugalaale njàngum université mii ñu xam mm, ci biir kon ko ëpp na université moo tax mu jàmmaa lañ koy tuddee complexe muy liggéey bu am solo boo xam ne euh, booy wut nawlee liggéeyam ca liggéey yooyu rek ngay muy lu mel ne raay bi ak jumaa ji waaw maanaam euh, te dafa dikk ci jamonoom ndaw ñi dañoo yittewoo xam-xam fi mu toll mar ko mar woo xam ne mënuñoo ñàkk lu mel ne lii Serigne ba Bachir taxawal te Serigne Mountakha la gën a yéeme mooy euh, yemut ci bosu boppam rek waaye daa gis yu ndaw yi nga xam ne ñooy boot mu jàmma am bi yépp mu taxawal leen e, bi ñuy teg xeer yu bërki dem rek muy e, mahadrus mahadrus islamiya Cheikh Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké bii ci tokkoor bi gis nga téeméeri millions yam ca joxe kon xam na ne mu jamaa bi pour mu dox dëgg-dëgg faw e, jàngukaay yu ndaw yi ci des yi nga xam ne fa la ñuy amee diplôme baccalauréat taxaw ñu door faa mën a jëlee indi ci université bi. Hmm. kon foofu day mel ni yow sëñ Bàcci suñ ci université bi dafa mel ni ni raay bi amoon importance waaye kon kon kiit moom dafa boole ñaar wala sax mën nga ne dafa boole yu baree bari ndax boole na liggéey ñu xam ne kon liggéey ci yoon wi la waaye liggéey nag bu ànd ak bu ànd ak xam-xam nga xam ne kon dafa mel ni tey léegi li maanaam li li ñu soxla ci daara yi li ñu soxla ci école yi li ñu soxla ci leneen kon maam moom moom la boole nga xam ne kon lépp lu waay di soxla ci xam-xam. dana fa am waaye nag nag ñu bawaat xel ci ni yore dafa dafa laaj liggéey kon ci la bokk waaye ngay waxaat sàng ni mel na ni kon liggéey moom da koo ñor ak xam-xam waaye du ceegi ni da koo jooyal rek ci lim taxawal waaye lépp lu koy dundal lépp luy dundal liggéey ak xam-xam rawatina xam-xamu diine rek kon day mel ni boo moom fekk fekk ci loxoom. waaw parce que Serigne Touba radiallahu taala anhu ñetti machaari ñetti projet la fi bàyyi masro bi njëkk mooy jumaa ji aj Makka ak eh, daara ju mag juñ ko tabaxal Touba joo xam ne ñi doon sàkku xam-xam daan génn di dem ni eh, suñu classe gi nga xam ne daj nañ ci àll bi coono boo xam ne ñooñu ñëpp ku ci bëgg a jàngeeti doo génn Touba. Touba di nga fi jàng ba jàng fii li nga bëgg jàng lépp te doo ko génn eh, maanaam bëgg-bëggu Serigne Touba boobee moom la Serigne Mouhamadul Mountakha taxqiq moom rek la dëggal moom rek la indiwaat kon yoon wi xitma bi ci jiitu mooy. projet jumaa ji jumaa ji nag faaw raay bi ñëw bu pare comme ni ko Serigne Ahmadou waxee jumaa ji door am ndax saxaar gi ci raay bi lay jaar door a indi matériel bi tabax jumaa ji waaye xam-xam mënta ñàkk leel Moustapha bannal quduusu madrasatan boobu mu wax kon e, Serigne Mountakha e, ndigalul Serigne Touba loolu la taxawal comme Serigne Mouhamadul Moustapha ni mu taxawalee loon ndigalul Serigne Touba loolu mooy raay bi ngir jumaa ji mën a am Serigne Mountakha noonu rek la taxawee mooy mottali naali Serigne Touba moom la def fi mu toll loolu tax mu taxawal mu jamaa bi mu jamaa bi nag ni ma la ko waxee daara alquran la tàmbalee majlis comme njàngiin wa xew boo demee Maroc xarawin nga xam ne système mu majlis la da ngay dugg ci majlis bi ba keroog nga am doctorat nga xam ne diplôme yëpp ci nga koy amee bac euh, euh, licence euh, master ba master 1 master 2 ba def sa doctorat konal sëñ bàcc foofu day mel ni moom buñ ko buñ maanaam buñ <laughs> kon day mel ni buñ déggee ni nga waxee mel ni daal kon lépp luñ soxla ci xam-xam maanaam moom kon incha allah bu yàlla dogalee université bi noppi kenn du ko jéggaani faneen bi ci toppit kon jàpp naa ne war nañ cee déggee ni kon murid yi jullit nii waaye rawatina murid yi waruñoo yem rek ci yéem procès bi ak liñ ci def waaye kon ñoom war nañ cee jàng ni kon ñoom liggéeyal yàlla kat taxaw na kenn ku ne war caa def sacrifice lam ca man waaye nag it nag ni ñu defee suñu sacrifice ba liggéey bi taxaw waaye noonu la ñu war a defee suñu njaboot nag ngir maanaam mën a tàng xam-xam ba fa nekk maanaam nga xam ne kon bu baax yéene Seexul Xadim ji mu amoon Cheikh Madou Moutakha mi fas fas ko yéenee mottali kon day mel dañ ko ci déggee kon lu am solo la xam naa incha allah dana ñëwaat ci yow waaye xam naa kon damay ñëwaat ci sëñ Axma moom mel na ni mi ngi tàmbali woon ci am solo gu am solo goom si raay bi am na ko solo ak la taxoon Cheikh Moustapha di ko taxawal ak di waxit nag maanaa jamono yi mu ko taxawaloon kon xam naa suñu xam dañu lay joxat foofu kàddu rek ginnaaw bi nga xamee ni maanaa kon dañuy dégg ni liggéey moom ndono la ci yoon wi waaye nag mu mel ni ku bëgg a liggéey nag da ngay am foo jaar waaye ku dem bañ jox la liggéey bu toll ni jumaa ji ba batale la ko kon lay tax nga mën koo sottal da nga ko def mu mel ni kon bokk na ci li tax jumaa ji mën a sotti mooy raay bi. jërëjëf sëñ liñ ciy jublu rek ci. waxtaane tomb boobu mooy bëgg ñu am jom am yitte ju kawe ci jéem a daan sunu doole ndax yoon wi daam baat yuy jib yoo xamante ne ni bu yàggut la tàmbalee xew te mooy sunu teraanga sëñ bi aju ko ci sunub liggéey sunu àjjana sëñ bi aju ko ci sunu jaamu yàlla baat la boo xamante ne mi ngi commencé tasaaroo te loolu bu ñu gëstoo ci biir njàngalem sëñ bi amut fu mu cay feeñ ci mbind walla wax ju wér joo xamante ne ni mënees na caa sukkandiku ndax mag ñi nga xamante ne ni ñoo ko waroon amu ci menn mag moo xamante ne ni nelaw ak yeewu moo doon ab liggéeyam te dañ koo boole woon ak tool ya boole kook jaamu yàlla yu tar ndax nañ tàmbalee ci sëñ Moor Jaara waw ci kong la yam mook sëñ bi ñoo bokk ja soxna Jaara te dañ ni téeméeri rakka la daan naafila te bu xëyee xëy ca daara ja te amoon nay tool kon jaamu yàlla la boole woon ak liggéey ndax li mu daan dunde moo ko daan liggéeyal boppam ak ñi ko yàlla booleel dañ dem ci sëñ Daaru Xasan Njaay dañuy téeméeri rakka la daan naafila te yàqalu ko woon ci liggéey dara te ca njàmbur la ne woon te yàqalu ko woon lam doon dundale ak njabootam ak lam sartonte woon ak sëñ Tuubaa ci joxe addiya ñu xool sëñ Mandumbe Cheikh Ibra Fall xool mboolem mag ñooñu sëñ daam abdourahman ma féete woon daara ja di jàngale ñooñ ñëpp gis nañ ni ci diggante al ibada ak al ci lañ ne woon ñu gis ni doomi boppam yi nga xamante ni ni moo leen yaral boppam ba àgg ci samp leen ñu taxawit kenn ku ci nekk bam la yebal fa nga ne dañ la boo demee nga boole jaamu yàlla ak liggéey muy jàng alxuraan ak di ko jàngale ak di jaamu yàlla boole kook di liggéey ci tool ya di dem ak a ñëw loolu moom la leen doon doon sant ba tax na kon su projet taxawee ci yoon wi mat naa bàyyi xel ci projet bi lu ko tax a taxaw ndax sëñ Moussa bu ni woon raay bi dama koy taxawal ngir roñ ci ab dund bu ma yót waa Touba ñu ni ba tey loolu wala bal na bu ni woon dama ko bëgg a def aw yoon it woo xam ne bu ma bëggatee dem Touba du ma am jafe-jafe it bu boobaa itam loolu yaay na ndax mi ngi am waaye lu tax mooy naal wu mag wii la gis ni su fekkente ne ni yoonu saxaar gi amut du am ni mu ko bëggee wala jamono yi mu bëgg mu am du ni amee kon yoon woo xamante ni ni jaamukaay bi yàlla ko tax a taxaw ñooñee ñu askan woowa sàggane jaamu yàlla du seen yitte wax ko seen làmmiñ sax gàcce la projet bu toll nii itam ku ko naal xam na ni liggéey koy sottal ndax bu fekkoon dañuy daje di wàccee kaamil ak jàng xasida rek jumaa ji du mel nii mu mel buñ ko doon yett ab xat di ko fete ni jumaa ji dee su ko yëm wala at mu jot dañ ko yeesalaat te loolu mën su ci dëkk moo tax mu naat di ay tool yu baree bari ci biir réew mi ànd ak ay gor yoo xamante ne nii ca lañ doon daan seen doole di ci liggéeyal Sëñ Tuubaa loolu lañ bëgg murid yi bàyyi xel ci ni loolu ala kulli xaalin ak fu jamono mën a toll loolu du taxaw ndax projet yi nga xamante ne ni moom la fi sëñ bi bàyyi te ñu war ko réaliser ni suuf la toll ndax sëñ bi deetu fi jóg ba ilal abat te waxtu ci nekk dafay gën di méngoo ak doxalinu jamono mooy dañuy yeesalaat jumtukaay yi waaye pas-pas bi moom du fi jóg waaye jumtukaay yi moom faaw ñu yeesalaat ko su fekkee daara yi la mat na yeesalaat ci tabax ak ak col ak dunduwaay ba ak nekkuwaay ba su fekkente ne nii jumaa yi la laaj na yeesalaat ci gën ko méngale ak jamono ba mu gën a rafet ngir wàccuwaay bi suñ borom am ci ñun naka noonu barab yi ci des yëpp loolu moo tax suñ déggee sa wax foofu day mel ni maanaam mel na ni nit ñi walla rawatina murid yi euh, xam naa day mel ni léeg-léegi dañuy fàtte li fonde yoon wi ndax euh, bokk na ci ci ci ci buñ ko doon wax wos yi mu am benn bi xidma la tuuba li abdin muridin saadixin lahuma bi xidmatin waaye day mel ni kon léeg-léeg ñun dañ loolu day mel ni dañ koy bëgg a lekk léeg-léeg maanaam bëgg dem ci hadiya ak dem ci leneen ñaar bi it nit ñi kon mel na ni war naa fàttali ko ni ngir nit ki mu mën a jaamu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg mu jiital la faaw mu jiital liggéey day mel ne ñaar yooyu kon xana xëy na mat naa ñëw ndax léeg kon day mel ni dañ koy fàtte. waaw lu bare bari dafay mel ni murit yi dañoo daw jëm ci ganeen wet goo xamante ne ni kenn xamewu daa mel ni léegi làmb seen pees joxe moo leen gën a yomb ci tuur seenu ñaq te li ñuy joxe itam daa mat di seetaat bu baax a baax. ndax gis nañ ni jamono dafa ubbiku wërsëg yi daa gën a bari gën a tasaaroo waaye ndax lépp la sëñ bi soxla déedéet sëñ bi bind na leetar borom darul moxti wax ko mu wax njaboot gi ne képp ku amee bor bu ma jox addiya ndax fay bor moo gën a farata joxe addiya te dama yor lu sell loo xamante ne ni bëgguma ko ko kooj nga gis ñoo xamante ne ni dañuy yor àq yi bare bari ci seeni employé fay ñu leen seeni droit ñëw jox sëñ bi ay millions ba pare di ko publier ba pare ñëpp di leen tagg di leen tudde ñaayu xare wala murit saadix te delluwaatuñ ci ginnaaw loolu dafay mel ni lu bees la phénomène la boo xamante ne ni daa dugg si ci biir yoon wi nga gis ni nag bu fekkente ni ñaq la ñaq du réer te ala kulli xaarin aw ñaq moom lew lay doon waaye ñu gis ni itam nag ni mag ñi ci seenum njàngale ci seenu fonk liggéey ngir liggéey taxawaay taxawaay jaamu yàlla waxoon nañ critères yi tax liggéey bi door ak jaamu yàlla waaye itam suñu borom nag daa am bari bunt yoo xamante ne mën na caa jaar teeral doomu aadama te du liggéey ndax liggéey benn rek ki la ci bunt yi suñu borom di jaarale wërsëg waaye wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan min haysu laa yahtasib wa yarsuq min haysu laa yahtasib loolu bunt la ci taqwa boo xamante ne ni nit ki mën na faa àgg dajale ci wërsëg loo xamante ne nii kan ne ca tool ya di bay mënu ko am wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu loolu itam buntu la boo xamante ne ni mag ñi dund nañ expérience bi ba prouver indi ay ay résultats yu concret yoo xamante ne nii xam nañu bunt la ndax boo ci gisee ci mag ñi gis ñoo xam ne wóor nañ la la leen suñ borom jógal ci war wërsëg seen di jor mënu ko jeexal waaye kenn xamut fenn fu ñu ami tool waaye bunt boobeer moo la mooy wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa bunt la boo xamante ni mag ñi dund nañ ko mosuñoo dajale dara waaye mosuñoo jeexal dara yooyu itam istaghfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursilu sama aleykum midraara yooyu itam mag ñi dund nañ ko ba concuriser bunt boobu ba nga xamante ni ne taxawal julli itam bu sëñ Moussa di taxawal ab raay ngir taxawal julli julli daa bokk ci bunt yi joxe wërsëg wa amur ahlaka bi salaat wastabir alayha laa nasaluka rizqan nahnu narzuquka wa iyyakum nahnu narzuqukum loolu mel na ni julli day joxe wërsëg moo tax bu amee projet boo xamante ne nii yoon la wu nit ñiy jaar ngir mën a taxawee faratay suñu borom yi suñu borom mën na caa jaare jógal leen ci wërsëg loo xamante seenum di jor mënu koo jeexal moo tax ñuy julli liggéey ak jaamu yàlla mhm. macha allah kon day mel ni buñ ci buñ buñ déggee rek day mel ni maanaam bunt yi moom bari na waaye nag mel na ni bunt yi nga xam ne moom nit mën na see jaare dëgg dëgg dëgg dëgg mooy xidma waaye comme ni nga ko waxee nii maanaam alal moom munta remplacer julli alal munta remplacer dara waaye nag léegi tur saw ñaq wala maanaam xidma léegi ci leen ñu mën a jaare ba maanaam jëf jëf jëf ndigali suñu borom yi léegi nag soo ko defee ba pare nag suñu borom nag mën na la mën na la caa wërsëgale nag nga xam ne gannaaw bi nga defee jaam yàlla ba noppi nag mën a la caa wërsëgale nga xam ne bi nga koy def kon wut wut wërsëg taxutoon waaye da ko def ngir yàlla waaye boo wutee alal jóg mun taw remplacer sa jaamu yàlla kon maa ngi mel ni loolu lañ déggoon kon mel ni taxawaayu raay bi dañ ciy déggee ni liggéeyal yàlla la teg maa liggéeyal yàlla la ginnaaw ba nga ko def ba neppe nag bu la ca alal dikkee alhamdulilah bu la ca dikkalut nga xam ne nga xam ni def nga la nga war sa diggante sa borom waaye boo ko defee ba pare sax suñ borom dala cay fee lépp loo bëgg mu jàppandi loolay am ndax Sëñ Moustapha dafa mel ni loolu feeñ na ci bi mu ko taxawalee ngir yàlla lépp lu mu bëgg mu am rek kon mel ni am na kon suñu xam naa ñu ñëwaat ci yow incha allah xam naa ñu delsi ci yow tuuti yaakaar naa ginnaaw bi nga waxee université bi ahamiye bi mu am waaye ak lim làmboo ak lim làmboo kon day mel ni foofu it nag kon mel ni lan lañ ciy xaar moom it nag ginnaaw taxawaay ahamiye bi mu am waaye ak lim làmboo ci ay bànqaas kon lan moo war a nekk meññitam jërëjëf sëñ Cheikh meññetam du dara lu may xam-xam boo xam ne moo fi jëlee ak réer te Serigne Touba loolu la ci namoon xam-xam bu fi jëlee ak réer xam-xam buy tax nit ki xam boromam xam sunna si yonent bi sallallahu alayhi sallam ba du ko jaawaleeg dara ba e, du e, teggi ndigali yàlla wala muy dox ci ak réer wala muy da muy muy muy làmbatu ndax mag ñi dañoo xamoon yàlla waxoon naa la ko seeni seeni jànguwaay jàngoon ba xam yàlla ak yonent bi dégg diine lool ba pare nangoo jaamu yàlla eh, sëriñ bi nag lool sëriñ Tuubaa nag loolu la ñaanoon ci dëkk bi ak eh, xam-xam am fi réer man fee jóge sëriñ Muntaxa tabaxal ko projet bu toll noonu kon meññeen ma fay jóge du dara lu may xam-xam bu diine moo ci jiitu donte yeneen xam-xami àdduna yi am na fa waaye da gis ne eh, même boo ñëwul ci projet université bi waaye njëkkeel jumaa jëm tabaxal Serigne Touba ca dakaar muy projet boo xam ne Afrique sowu jant gis nañ ne benn projet ëpp ko fi loolu it boo ko boo ko nattee raay ba da gis ne raay bi ba ba ko Serigne Maodo di taxawal benn projet ëpp ko ca jamono jooja bu bu jëm ci diine bii tamit noonu benn projet ëpp ko bu jëm ci diine noonu lay wàccee te gis nga eh, eh, jànguwaayam bii am na yeneen jànguwaay yu ko fi jiitu. Eh, wax naa ko muy eh, sëñ As ñu ko Cheikh Mamadou Fadal joxe ndigal ngir muy jàngale ci jumaa ji boobu lim génn ci kàngam kenn xamut nu mu toll ak li muy tuuti tuuti waaw bërëb bi li muy kii kii waaye lim génn ci ay boromi xam-xam ci réew mi kenn xamut nu mu toll Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ak projet mahadrusu islami nga dikk Cheikh Mamadou Mourtada Serigne Mamor mii yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ay cëram. gis nga ni mu ko yokkee ba soppi ko université yu baree bari nga xam ne région bu ne am na fa université kon nga xam ne yoon wi loolu leen Serigne Touba bàyyi. Euh, mu mel ne Serigne Ahmadou doon na ko wax léegi ci procès mag ñi fu ñu doon jëlee waaw yoon wi dañ doon wax jànguñu waaye tey fi mu toll moom yaakaar naa loolu kenn ñemetu ko wax li muy génne ci ay magistère ci àll bi ci réewu naar yi fi mu toll ak yi dakatira ñoo xam ne def nañ seen thèse ba pare kenn xamul nu mu toll nga xam ne euh, liggéey bi bu ko tijjee rek. bu ko tàmbalee rek jàpp naa ne moom euh, talab talab yi demande yi day fees moom euh, ak ak tamit li ma gën a yéem ci moom mooy majaalis yi majaalis yi ñu nos ni ñu ko nosee ci Touba nga xam ne mosu fee am tabax bâtiment yu mag jagleel ko njàngu majalis képp ñenn ñi doon góor góorlul seen bopp ci ab roq ba mu ba mu leen yëgee yëg seenu njàmbaar mu wut suuf jox leen teg ci ay millions ne leen tabax leen kon ni muy dimbulee njàng njàngum diine ci ci dëkk bi moom wala ci yoon yi fu mu mën a doon moom kenn mësu koo gis. kon sëñ Bàcci xam naa day mel ni waxtu bi li des bëriwut xam naa kon laaj bi mooy ànd ak tàggatoo bi euh, kon day mel ni université bi suñ ko déggee kon mel na ni ku ku ku xamagul benn araf ba fa njàng yam kon mel na ni maanaam bu noppee moom loolu lay doon léegi may laaj nag projet bu mel nii léegi jullit yi rawatina murid yi ban taxawaay lañ ci waroon ci jamono bii mu toll waaye bu noppeet ban lañ ci war a am. jërëjëf sëñ Cheikh eh, murid yi wala jullit yi projet bu mel ni ban taxawaay lañ ci war a am mooy nii ñu ko defee rek daayira yi wala yenn xeeti eh, mboota association yi wala mbooloo yi dajee ba pare di morit dajale seen xaalis indi indi ko eh, jox ko sëriñ bi wala mu sas leen bâtiment sàngam ak sàngam ñu fexe ba taxaw ca bu paree tamit ñu fexe ba yu baree bari ñu jàpp ca parce que loolu mooy tax lépp dox nee naa sëriñ bi li fi bàyyi bokk na ci dëkk bi tamit dëkk bi nu ñu def ba mu jàkk eh, lu mel ne yenn xeeti eh, taxawaay lu mel ne Touba ca kanam nii ñuy laaje alal di ko dajale di ko delluwaat ci dëkk bi eh, yenn daayira yi wala kër yi ci boppam ni ñuy def takkoo ba doon benn jël genn kilifa teg ci kanam dajale seeni million àndandoo dem jébbal ko Serigne taxaw jébbal ko xalifa général bi fi nekk mu delloo ko ci liggéey bi loola jàpp naa ne dara gënu ko ci dig jàppale nun jàpp naa ne nun mën nañoo defal suñu bopp lépp Serigne Touba am na lépp ndimbal jërut ñu koy sàkku ji fenn waaw kon murit yi mën nañ lépp ni ñu def ba taxaw taxawal projet bi nangami mën nañoo def mën nañoo def noonu ba yor ko yoral ko seen bopp kon daal kenn ku nekk jàppal ne eh, Serigne la mu doon wax ne nañ ma tabaxal daara joo xam ne ku bëgg a jàngi Touba ngay jëm te la ko tax a jóg muy dañ ak réer na nga fexe ba dañ ak réer googu yow sa saw ñaq dem ca loo ca def lu mu néew néew rek participer nga ci dañ dañ ak réer googu jàpp nga sëñ Touba ci liggéeyam. macha allah sëñ Sam sëñ Bàjji kon day mel ni daal ni ñu ko déggee kon bu yàlla dogalee mu noppi kon du jar kenn di di di jàngeeti di génn kon jàpp naa ne li waaye doon génn di ko jàng di ko di ko wuti faneen ndax yaakaar naa waxuma njàngum xam-xam xeeti xam-xam yi mën a doon waaye njàngum métti sax maa métti sax maanaam nga xam ne kon kon daal dana doy sëkk képp ku nekk Touba nga fexe kon sax njaboot gi daan paas di dem faneen dudu ko jar kon loo bëgg xam ci ci xeeti làng loo bëgg xam ci xeeti xam-xami diine ba ci xam-xami àdduna ak xam ak i métier kon léegi université bi dana ko ëmbaale kon day mel ni loola bu noppee rek lu waay bëgg ci xam-xam kon da nga ko ci am incha allah sëñ Bàcci kon jërëjëf. daaw mhm. daaw waaw daaw da koy déglaale kon incha allah jërëjëf sëñ sëñ Massamba kon xam naa sëñ Axma it xam naa kon laaj bi ñu li mujj laaj rek mooy euh, raay bi ñëpp nga xam ni projet bi ni meloon ak jamono yi nga xam ne ci lañ ko taxaw boo jamono booba nag murid yi yan taxawaay lañ ci amoon ba tax ñu mën a réussir lu mel noonu ak yan bind lañ ci mën a jëlee tey jërëjëf sëñ Thia raay bi contexte biñ ko taxawal mooy contexte crise ci lañ ko taxawal waaye sëñ Blaat daa waxoon lu am solo dani moom xam nawet bu bu nangu ak xol yu nangu te xol yi moom nangul nañ sëñ moom xamul nawet bu gàntu xol yu nangu la xam te xol yi nangul nañ sëñ Tuubaa xol yooyu nga xamante ni ñoo nanguloon sëñ bi ñooñu seenu njaboot a fi des ba léegi rek xol yi yenn la xëy na jëmm yiñ nekk wuute waaye xol bi moom benn rek la muy yitte ju kawe te yitte jëpp jëm ci ahla u kalimatillah luñ bëgg a wax kay mooy murit yi xam ne baat bi indi sëriñ bi fii mu tëdd tey baat bi indi raay bi Touba ngir taxaw jumaa ji baat bi taxawal jumaa ji baat bi titre foncier dëkk bi woote màggal gi baat boobu moo taxawal université bi réalisateur yi nag mën nañoo woote contexte yi itam mën nañoo woote waaye benn baat rek la te ci kam war a jóge la jóge muy Seexul Xaddim ndax bu ñu delloo rek ci matlabul nii nga xam ne mooy plan directif Touba da ngay dégg mu ne wàccalu mawdia ma wàccalu da ban maskana taallumi maskan la wax maskan préscolaire la mooy fu ñuy internet ay gone ngir mën a sol ci ñoom xam-xam waaye yemu ca wa mawdia al fikra université la mooy foo xamante dafa am recherche ak documentation loolu ay ay universitaire ñoo koy def te léewon wàcc wàccul da ban maskana taalum wa mawdia al fikrati wa tafahum mooy foo xamante ni ay solution dafay man di jóge ngir loo xamante dafay régler àdduna moo tax toujours damay wax ni Touba misla smiha ji man li ma koy déggee mooy ginnaaw Touba garab la goo xamante ne ni mboolem bànqaasam amul kër ci àjjana juum duggut dafay mel ni Touba gi itam solution lay doon ci fépp fu problème mën a am ci àdduna solution bi Touba lay jóge te loolu woote bii mujj bii Cheikh mun Mountakha woote di def tawassul ci Sëriñ Touba ngir jële fi mbas mi ak ñaan suñu borom nawet bu barkeel mel na ni bu sottee ñëpp danañ xam dana gën a xamaat may gi suñu borom may sëriñ bi loolu benn la ci woon ci li taxoon ñuy waxtaani Cheikh Mouhamadul Moustapha ak liggéey bëgg soññ talibe yi ci ñu gën a góorgóorlu ci liggéey waaye na gën a jëm ci fàggulu lew te mooy tandiku lépp loo xamante ne nii lu xajam la wala lu lënt ndax loolu yoonu sëriñ bi newu ci ñuy sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal tawféex ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Ahmadou kaddu am na solo lool kon day mel ni suñ ko déggee rek mooy maanaam war nañoo bàyyiwaat xel ni daal kon Touba solution la waaye nag mu mel ni solution bi ñun ñi nga xam ne moom ñoom la Seex Xaadim doon ñaan moom Seex nekk solution waaye ñun murid yi nag rawatina ñi dëkk Touba ñun kon taxawaay boobu la ñu war ba man ba maanaam ba mën a nekk ñuy approuvé solution boobu kon képp kuy am murid rawatina nga dëkk Touba ni Seex Xaadim nekkee exemple ci kilifa yi kon day mel nit noonu rek ñun noonu lañu war a ne mën a nekkee ay exemple ci yenn ci ci ñeneen ñi kon jërëjëf kon xam naa suñu masaa ma jox la nga tàggoo incha allah jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci eh, jataay bi di ci bég lool la ci eh, wuyu gi ni nga ko waxee rek manhaju Cheikhul Khadim mooy solution mooy doxaliinu Serigne Touba radiyallahu anhu eh, di ñaan borom bi subxanahu wa taala àggale ñu ca bis ba ak jàmm ba ni ñu ko mébéte ñu um, defee ko noona te sunu borom nangu lépp barakatu Cheikhul xaddim te wàcce barkeem ak yërmandeem ci fu ab jullit nekk rawatina taalibib Serigne Touba te projet yëpp ak naal yi Serigne Mountakha naal yëpp naalal ko lislaam naalal ko Serigne Touba euh, mu àgg ba mu naalaat yeneen euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëñ Bàcci jërëjëf sëñ Ahmadou kon mbokk yi lii mooy jataay bi ñu indiloon ci wàllu liggéey ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu jëloon ci exemple ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ak bi. waaye jëloon ci exemple it Cheikh Mouhamadou Mountakha ak université bi kon murid yi war ci jëlee ay royukaay ñoom it kon xam ni ab murid dafa war a liggéey waaye ci lu koy jariñ rawatina ci wàllu diine kon jataay bi la ñu andiloon kon di sant ñëpp di leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.